nawetaan yi mbaa dina am ci saison ren ji nga xam ne corona gi lëmbee na ko ba tax na daanaka lépp luy wàllum jongante ci tàggat yaram ñu aj ko fii ci senegal donte mouvement nawetaan bi bokk ci waaye ñi yëngu wala bokk di gëstu ci wàllum football local bi jàpp nañu ni tontu lii mooy déedéet nawetaan warut a mën a am ci ay kàdduk Amadou kan di président bi ñu dénk ONCAV mi géré wàllum nawetaan yi mënaguñu anule mbir yi bi li xalaat wuute lool ak ni ñenn ci ay président ASC ci see yëf yi ñàkkum football nawetaan yi bés bu amee lu mu mën a indi ci ay njeexital bëri na moo xam ci wàllum tàggat yaram bi wala bokk ci wàllum koom gi wér gu yaram askan wi rawatina joueur yi jiitu

xam nañ ne fi situation bi toll méngoowul ak dajale ay nit ci ay stade parce que kilifay réew mi sax nangu nit ñi dajaloo kon ñu nit li kilifay réew mi wax dañ ciy tënku mooy li nga xam ne mooy football bi defe naa ne ren jàpp naa ne am na lu ko gàllankoor muy mbas mi. pour man nawetaan ren du am warul am contexte bi tax na ba fu mu nekk nii euh, conditions yi ne sont pas réunies pour nga nga mën pour nga mën def compétition. parce que pour que conditions soient réunies pour nga pour nga la compétition moi déjà euh, li nga wara a saytu c'est le plan médical wala li nga wara ar ni nga wara a ces ces joueurs ces supporters ces dirigeants ces conditions là ne sont pas encore ne sont pas réunies. Wa bon en fait au niveau de Pastef ñun depuis que Covid bi a mu dugg ba donc ñun euh, vraiment le sutural nous donc nous nekk vraiment di def euh, donc euh, parce que nous ba vraiment sur le terrain donc di def ay campagne de sensibilisation donc on a distribué ici au niveau des 26 rek def journée on a distribué pratiquement 800 masques sur chirurgicaux donc joxé fi presque 75.

taxaw àndandoo ak commune bi aussi jël li ñu am mu néew mu bari gunge aussi ki nga xam ne mooy autorité municipale bi pour xeex mbas mi nga xam ne moo moo gàllankoor àddina tënk Sénégal tënk ñëpp. ca ASC Pastef bu Parcelles Assainies eh, président bi li mu sàkku mooy ñu jëm ci yeneen xeetu nawetaan maanaam bu weesoo football bi ASC yi war nañu mën a jongante ci yeneen i fànn lépp rek jëm ci yee ak soññ askan wi. ci xeex bi ñuy coronavirus bi les mesures barrières nan lañ koy fexé ba mu amé tu vois même championnat yi nga xam gaay gars ngi football ni dañu dañuy football sans public té ku ne nawétan public mo tax nga woon nawétan bon maintenant nak bon pour que nawétan am peut-être mën am mais d'une façon d'une d'une autre façon quoi c'est-à-dire que mën lañ def nawétan euh, nawétan bo xam ni c'est c'est social c'est culturel tu vois donc euh, vraiment sensibiliser qui euh, ASC e yi.

kon bu ci bëggé bolé di dajalé nit ñi di dem di defe ji loolu itam xeyna bis bu mbass mi duggé ci ginaaw raay ñun kenn dootul mucc lool rek moo moo tax ñun ñu xalaatee non même l'état du Sénégal dans sa globalité mënu ko waxtuma la une structure bo xamné que c'est une structure qui gère buy buy gérer un peu les activités de France donc pour man nañu ré nañu orienter ou bien réorienter les activités de nawetaan si yeneen les activités de sensibilisation des activités d'accompagnement nga xam dañuy dugg ci population yi di waxante di waxtaan pour que mbass mi mu wacc parce que aussi balaa nga naan nefa ñen ñoy dem terrain di seetaan suñu supporters suñu suñu selon les populations tay Covid bi population la impacté donc population yooyu amna na leen lu tal à mon avis que jug naan ñu ngi dem terrain di dem d'autant stressé plus que bu dul Covid bi sax dañuy xool ne nawetaan dañuy xol ñu koy organisé parce que déjà à Dakar en tout cas ñun ce qui nous intéresse à Dakar amul infrastructure il y' a même pas de stade pour football amu donc condition yooyu yëpp nga bëgg toog ne nga dëgg bëgg da ngay xalaat ndax di nga organiser nawetaan ou pas je pense que euh, perte de temps la quoi. ñàkkum football nawetaan yi bés bu amee lu mu mën a indi ci ay njeexital bëri na moo xam ci wàllum tàggat yaram bi wala bokk ci wàllum kom gi. bon peut-être peut-être sur le plan sportif peut-être dina xaw am tuuti parce que bon après bon peut-être que di nga mën a am ay jours yoo xam peut-être di nga leen perte genre xam nga wala booy ñoo xam ne dañuy nekk en méforme donc voilà peut-être côté boobu quoi dina am tuuti impact quoi mais bon sur le plan financièrement bon peut-être que sax dañu naan sax peut-être dañuy permettre ñun sax ñu xaw toog noppali ko tout quoi ñu lay président d'ASC. évidemment dina dina am impact bien vu que du ma ko mën a chiffrer mais dina am impact.

donc buñu ñu fekkee ne que période bu loolu amatul donc euh, joueurs un peu euh, ñi ñi nga xam ñoo waroon ñëw pour détecter les joueurs pour mën leen di yóbbu et cetera pour seen carrière loolu aussi dafay impacter donc si à ces deux niveaux là day impact. Euh, beneen aussi engouement populaire la moment nawetaan xam ne ne engouement populaire la peut-être engouement populaire boobu aussi dina si dina si impacter mais en tout cas daal impact bi c'est c'est c'est c'est tant au plan financier qu'au plan. même carrière carrière joueur yi quoi surtout man surtout ça aspect boobu moom si gën a moom si gën a intéressant mooy carrière joueur yi. nawetaan bu ñu ko daan wax ñun au niveau de ginnaaw raay defe naa ñi taxaw sama ginnaaw mën nañ ko confirmer ñun bu ñu daan dem nawetaan au mois d' avril mois de mars avril dana fekk ñu commencé nekk ci ay activités yoo xam ne daf ñuy permettre ñu mën dugg ci compétition bi football bi comme ni ñu ko mais ren bu waxtaan wax dëgg ci la bokk.

nga xam ne xale yi du duñu bàyyi activité boobu da leen di occupé duñ fi nekk di dem géej wala ñu nekk di def loo xam ne xëy na da leen di lor kon loolu defe naa ne sur plan sportif bi moo doon indi loolu kon su sport amul ren rek loolu aussi xale yi dañuy naqaree maîtriser. ci seen i kàddu sax ñoom xaar ñu kenn ngir dugal seen loxo ci xeex mbas mi ca gox yu ñu dëkk muy sax lenn ci li wundu ab ASC. gis nga lii nguur gi jël décision muy nit ñi communauté yi. jóg dem waxtaan ak ko euh, seen i seen ñooñ defe naa ci loolu ASC moo ci gën a placé parce que aussi ñun ay relais lañ yoo xam ne li ñu wax comme li ñu wax léegi population bi bokk nañ ci ñi leen gën a jege parce que man damay jàpp damay xool ci ñun suñu équipe ñun tey te ñun benn rek lañ ci waaye am na ay junni junni junni yu ñu raw ci loolu mooy ginnaaw bi ñu demee ci mairie bi jàppale ko bi confectionné masque jotee dañoo confectionné ay masque defar ci logo ASC bi wër ci dëkk bi jox leen ko

bi ñu gisee corona di ñëw Chine Europe extra di ñëw dañ ne bu ñëwee Sénégal fii nekkatul affaire u médical parce que bu doon médical kase la ñëli ñooñu gën taxaw donc xeex bi c' est plus communautaire que que que que que médical donc ñun depuis le début on loolu la ñu donc ñun on avait fait des masques déjà distribuer ko si suñu si suñu si suñu zone ASC distribué parce que depuis le mois de mars avril ah hein, on l'avait fait di ko en partenariat ak benn structure bu nekk si quartier bi aussi damay dañ jëlaat defaat ay ay ay ay kii de masque ay ay ay.

mais fi ak 2 mois 3 mois feebar bi mënu fi jóge ba ñu mëna organiser ay compétition donc pour man la décision la plus sage c'est juste de dire que euh que compétition mënu am. donc waa ONCAV fan yi ñi ngi joxé ay note euh, di wax ASA yi nañu réaffilier donc euh, d'une façon virtuellement donc euh, par rapport comme niñ ko doon défé ça bu njëkk ba nga xam da ngay dem nga joxé ce qui réaffilier donc bi ben plateforme lañ joxé pour que ASA yi di si réaffilier donc ce qui implique que loolu mooy wane ni rek que ni donc dafa am ben situation bu particulier bu ñu nekk je pense que les mots du moment navétane, bien vrai qu'il y, a beaucoup de choses positives, hein, ça aussi, il faut, il reconnaître. il y a des avancées aussi, parce qu'avancées, surtout sur le plan de la violence, avance, avancée, ça aussi, il faut reconnaître. Mais fondamentalement, le mouvement navétane, d'accord, évaluer, et puis, quel est le rôle réel des présidents d'AEC. gën dans la gestion de parce que ASC nous les acteurs pour du mouvement il y a de mais un fossé extraordinaire entre les organes de direction ak ak ak ak nga donc ce là ce lien là ko a renforcer de sorte que décision bu mettre en œuvre mais aussi donc ça également c'est des pistes d'évaluation. coronavirus bi a ndollu lañ ko war a mën a defaraatee. ay ay ay ay kii yu bëri yoo xam ne activité yu bëri yoo xam dina permettre que ASC bi di dund en dehors des périodes de nawetaan parce que nawetaan bi deux à trois mois la bu jeexee jeex na bon voilà quoi donc il faut que ñu ñu il faut ñu xalaat yeneen yeneen activité yoo xam ne dina dina permettre aux aux ASC en tout cas aux jeunes des aux jeunes des quartiers ñu gën si ñu gën si euh, ñu gën si gis seen bopp. Ah, on ne peut pas dire totalement totalement que duñu bokk. Mais ça va être difficile, ça va être difficile parce que bon, peut-être que nous beaucoup totalement, après on va aller vers une assemblée générale aussi parce qu'à essayer aussi de nous structurer où, c'est des choses qui ça se décide au niveau du comité directeur et tout. Donc voilà, donc on ne peut pas dire que nous beaucoup ni, mais on n'est pas prêt vraiment pour, participer à, à, au, au euh, cette année quoi. parce que itam ne nit ñi nangu loolu dafa am ñu xam ne aussi ñun nit ñi nga xam ne ñun ñoo dëkk ci gox ya goxaar yi ñoo dëkk ci ñoo askan wi ñun ñoo war a jël ba bu rek na fi ah, dina am wala du am ci atum ren jii li leer mooy nii li ëpp ci ASC yi ah, fas yéenewuñu bokk ci yëf yi ah, ca jamono yi nga xam ni waa ñoo ngi gàddu kàddu gu mujj gi li leer mooy ni bu terrain football yi. bëri na lol mbir yi laxasu ci organisation wala report nawetaan yile